jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ñoo ngi fii seet si woon ki nga xamante ne mooy Double Moteur mu def open press mais ñu topp ko bu buntu këram bëgg a waxtaan ak moom Double nuyu naa la. waa ñu lay fay waaw di la siyaar di la magal di la kontaane di la dalal jàmm bu baax. ñu gis combat bi euh, wàccaay la xawoon na yàgg tuuti naka ngeen ko doon waajee. waaw combat bi waaw yàgg na trop wàccaay bi métti na combat am na attaque lu teg waaw bi métti na trop mais mooy li ngeen gis rek waaw nekkoon suñu loxo aussi di liggéey. gars yi si war a jàpp aussi tamit jàpp si rek moo war a tamit xam nga métti na mais yàlla suturaal nañu ba lépp gérer nañ ko daal. mais at moom boo ci waajee kenn du ñëw ne pare wu ma moom. waaw loolu moom dëgg la moom waaw. mais sa diggante Quench lan la laaj. waaw ñun moom saa yi li ñu war a liggéey daal liggéey nañ li ñu war a def def nañ ko lenn moo ci des ñuy xaar la jours yi ñu appliqué li ñu liggéey loolu kese la. mais ñu gis nga jóg nga duggoon Lansar am ca ndam génnaata goo fa nga tegaat fa sànq da nga jàpp ne foofu day nooy wala. waaw mooy li ma yàgg a wax rek ñun xam nga ñun fii lañ secteur bi ñu dëkk la ñun ko def Ndakaaru bi lañ dëkkee moo tax banlieue bi rek la ñu làmb di booleel parce que boo xoolee tey open press bi gis nga fi waa Bawol gis nga fi waa Fass gis nga fi waa Médina gis nga fi waa Colobane gis nga fi waa Gueule Tapée gis nga fi waa Somone gis nga fi ñëpp xam nga kon tey làmb mënuñu boole ñu dul waa banlieue bi parce que ñun duñu bëri suñu biir loolu kese la moo waral duñu bàyyi xel sax dugg ci écrit duggaat fa suñu adversaire ñoo fa nekk ñuy bëri ak kese loolu kese la mais ngay bëri moom mosagul am défaite non am na défaite ku ko daan. 10 problème moo ko daan. sa diggante yow ak moom xalaat nga ci xeex. waaw lu ne mën a génne kat bëri dóor la ñu wax làmb la en tout ñun par nañ lépp dañuy yóbbaale lépp waaw lu mu laaj ak ñu def ko incha allah. ñu ci bàyyi ne nañ combat bi du gaaw ndax calcul bi da ciy bàyyi ndax doo nangoo jël risque moom tamit noonu. waa ñun moom ku ñu xam ku nekk xam ne ñun combat du yéex a si ñun ndax ñun chaque jour rek làmb bu ñëw moom war bi sifflé moom li ñu war a def dañ koy def. en tout cas ñun moom bu at bi sifle dañuy appliquer dañuy yéeg sa kaw duñ taxaw di xaar waaw moom na bu dëggalee boppam comme ni dégg muy waxee làmb ji du yàgg dina neex dina gaaw eh, xanaa mu ñëw téye boppam comme ni mu yàgg def. non oh, yàgg koo def digganteem ak moom Diène Kaïré la ñëw xaw a téye boppam. waaw mais ñun moom en tout cas daal li mu koy wax moom daal comme moom moo ko def ba nga wax ko daal na fexe ba la set daal bu mu def loolu rek li mu waxee daal na ko jëfee rek hmm, am naa ne bu ko jëfee moom làmb ji du yàgg. wàllum mobilisation bi fan nga ci toll ndax ku xam Quench xam ne day mobiliser fan nga toll ci wàllum mobilisation. waaw wàllum mobilisation bi gars yi moom fii ku ne ku xam rëbës ku ne xam ne mobilisation moom da nga koy bàyyi seen loxo xam nga te wax dëgg yàlla tamit boo xoolee gars yi moom boo xoolee gars yi moom pare nañ parce que supporters yi gis nga ay toorol parce que boo xoolee boo xoolee gars yi pare nañ gars yi pare nañ bu yàgg combat bi supporters yi ñoo gën a bëgg sax. xam nga kon gars yi moom instant ko de mobilisation leneen la ñuy dagaan rek mooy ñu war a jàpp si billet yi jàpp si billet yi xam nga lu ñu am si ay billet doyul waaw parce que boo xoolee chaque combat lii des fii nii moo ëpp lii demee lii dugg lii nekk si bunt moo koy te dara warlu ko lu ñàkk ay billet ñàkk yenn moyens affaire yooyu moo tax tamit dañuy lancer message gars yi jàpp si billet yi bu baax a baax a baax lu ñu am si ay billet doyul ñu feesal stade ba mu fees dell xam nga daan Quench fi mu la mën a yóbbu. waaw xam nañ ko bu baax a baax moo tax pare wuñu sax pour moom dañuy pare pour gars yi si kaw waaw parce que combat bi wax dëgg yàlla pare wuñu sax pour Quench dañuy pare pour mbër yi nekk si kaw parce xam nañ lu ñuy xaar bu ñu génnee si combat bi incha allah. lan ngay wax ki nga xamante ni moo tëgg combat bi muy Baba jaw nekk xale dugg ci làmb doon ci gan lan nga koy wax. waa Baba Diaw dañ koy ñaanal amul dara luñ koy wax loolu di ko ñaanal yàlla réussite totale parce que moom jeune la koo xamante ni dafa am ambition te jeune bu amee ambition day neex a jàppale lenn lañ koy ñaanal yàlla bësam bii nii bësam bii la am parce que mënoo dugg si làmb ren nga taxawal làmb ji toll nii financé ci ay millions yu bëri gisoo sponsor gisoo dara dafa métti ay propre moyen am lay demee kon na si gars yi jàpp ku ci mel ni Cheikh Ba Messi nee na mooy Messi fu ko neex paas dañoo bëgg nag mu wane boppam ci làmb ji jënd billet yëpp comme ni ko yeneen politiciens yi di defee ci yeneen làmb yi. dàquñu ko ndax parti au pouvoir la nekk mën na ko dañ bëgg mu jënd billet yëpp gars yi fesal stade bi dell ñu xam ne moom mooy Messi bu dee dëgg la boo defee nag dafa jàpp wàccoon ak Baba Diaw parce que Baba Diaw daj na lu nekk ndax moom ku ne gis na li ko Baba Diaw liggéeyal biir Médina kon lenn rek la ko mën a fayee muy bésam bi ndax Baba Diaw bésam bi la am ay propre moyen nam la jël financé ko ci bës bi ay millions yu bëri amul sponsor amul dara kon nag ba Messi mi nga xamante ne tey jii nii moom la topp si ginnaawam di ko xeexal guddi di ko xeexal bëccëg na wane boppam ci combat bi jàpp si jënd billet yëpp gars yi feesal stade bi dell loolu lañ koy ñaanal waaw. lan ma dara lu ma koy wax dama. ma dara lu ma koy wax jàmm salaam laa koy ñaanal nekk na ci si internet yi di wax di bari wax boobu ba léegi ñun amuñu dara luñ doon luñ koy wax wala dara yaa ngi dégg dañ koy ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp la set yàggatul li ma waxoon laay waxaat lenn laa seq moom mooy arbitre bi siffle ma duma ko daan ko bu dëgalee boppam loolu kese amul leneen lu may siixu sàq ci moom wala dara. kontaan naa waaw beneen bi ci des tamit mooy waa Somone dama leen di sand bu baax a baax. parce que open press bi gis nga dañ def délégation ñëw mooy gars yi nga gis ni ñu ceene dañ tagg seen lépp bàyyi seen ay liggéey teg seen ay place ñëw nekk naa fa ay weer làqatu fa di fa liggéey ànd ay nit yaa ngi dégg ñu siy jàpp ku ci mel ne laat di si jàpp bu baax a baax a baax yaa ngi dégg ñu nekk fa ay nit sonn ci bu baax a baax a baax xam nga ñu amuñu seen fay ku ci mel ni monsieur le maire bu Somone dama koy sant Bokar Sadj ñu koy sant bu baax a baax a baax di ko woo ci combat bi aussi xam nga Cheikh Fall Armi ñoom dañ koy woo bu baax a baax Youssou Gueye ñooñu dañ leen di woo ci combat dem foofu noonu gars yi taxawuñu am lu ñu defal lu rëy rëy rëy yaa ngi dégg ay mbay nag jaxar soudeur métallique moom moom xëy na dañoo réeroo ba avant maa si sax yëgoowuñu mais moom moom ku si jàppale bu baax a baax waaw ku ci mel ni dooro Gueye Doro Gueye bu Waly Seck tamit aussi ñu ngi koy woo ci combat bi baax baax a baax a baax doomu nday Tafa Saliou doomu nday Waly Seck ñu ngi koy woo ci combat bu baax a baax ministre Mame Mbaye Niang ñu ngi koy sant moom bu baax di ko gërëm góor gi si Dieng borom Atlantan ñu ngi koy woo ci combat bi suñu papa Diop si kooku moom dañ koy sant Salif Keita DG directeur CICES kooku dañ koy sant di ko gërëm boobu ba léegi mu ngi siy jàpp jóge xaalis bër di ko ci def dañ koy sant baax di ko gërëm sëñ Mbaye Wade alxuraan ñu ngi koy sant baax sëñ Sidi Mbacke alxuraan gis nañ taxawaayam si ñun sëñ Fallou Maraxib ba sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axlaa gis nañ ñaanam borom Daaru Sane suñu sëriñ suñu wasila suñu yaakaar ñu ngi koy tàllal suñuy loxo di ko santitam bu baax a baax di ko gërëm xam nga di sant daal njabootu Cheikh Modou Kara bi xam nga waaw di sant Elimane Gueye taalibu Serigne Saliou di ko sant bu baax a baax a baax di ko gërëm Mortala Gueye taalibu Serigne Saliou ak bool-bool yëpp parce que gars yi combat bi gars yi dañ ci sonn barke Serigne Touba dañ leen di sonn dañ ci bu baax a baax a baax xam nga moo tise tamit moom da si jàpp bu baax yàgg na siy jàpp da siy jàpp moom mooy ñun ñoo ñun ñu koy sant bu baax di ko gërëm xam nga ku ci mel ne tamit bara ñu ngi koy sant bu baax ay Mame Goor Samb Ndiaye Ndéla amuñu fayam gis nañ li mu ci daj moom dañ koy sant bu baax ay Modou Diagne ay Abdoulaye Diop xam nga ak supporters yi ay toororo bu sëñ Fallou gars yi ay ponkal lañ gars yi dañuy bàyyi seen lépp di ci sonn di yëg seen moyen di ko ci def mooy ñi nga gis di jiite ñooy jiite combat bi ñu yëg seen propre moyen la ñuy demee amuñu ndimbal bu tax ñu naan ndimbal ndax amuñu kenn ku mës a yëkkati un million la ñu may ñu wala dara kon amuñu ndimbal bu tax ñu naan ndimbal propre moyen booy ñooy dajale seen ay xaaj dajale seen ay wéccet di ko ci def yaa ngi dégg kon ñooñu amuñu seen fay dañ leen di sant bu baax a baax di leen gërëm Abdou Khadir Gaye ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm xam nga di ko ñaanal yàlla aussi tamit moom parce que borom baax la te gis nañ taxawaayam si ñun aussi tamit ministre Mame Mbaye Niang ñu ko si combat yaa ngi dégg suñu maire nag Alioune Ndoye ñu ngi koy woo si combat yàgg nañ ko woo mais gisuñu suñu bopp si moom dama koy waxaat encore une fois gisuñu suñu bopp si ñoom bëri naa onze combat mosuma may cent franc yaa ngi dégg te ñun ay jeunes Dakar Plateau lañ ay doomu Dakar Plateau lañ di représenter Dakar Plateau yoon na tey su ñu amee combat suñu maire soutenir ñu jàppale ñu chaque jour ñu koy dagaan nag wax naa ko moom ba mu dégg ko bi ma ko waxee dana ma naa ñëw bureau bi ma ñëwee foofu noonu tey jii nii am na ñu ma fa fekk tey jii nii ñu waroon ma jàllale tamit am na ñoo xamante ne ñoom ñoo ma waroon jàll yóbbu ma si ñoom bi ma fa demee gisante ak ñoom ba ba léegi après dama si leen di woo mais dañ may bañ a jël dama leen di woo sax ñu may bañ jël te man bëgguma sonn ndax kenn wala may sonal kenn xam nga bëgguma sonal kenn parce que tamit man sama bopp laa gëm yàlla rek laa yaakaar mais en tout cas su jàppee da ci war a jàpp su ci jàppul jàpp Bamba Fall aussi tamit ñu ko koy woo si combat bi waaw Pascal Bassène suñu doyen ñu ngi koy woo Popol doyen ñu ngi koy woo ci combat bi xam nga di woo gars yëpp ñu jàpp si combat bi parce que ñu ci soxla mooy mobilisation la ci soxla ba mu doole ay billets kese lañ ci soxla képp ku ñu jàppale dañu lay ñaan ngir yàlla rasul nga jàppale ñu jëndal ñu ay billets loolu la ñuy ñaan si combat bi xam nga Ndiaye la moom dañ koy moom kooku ñooy moom mooy ñun waaw dañ koy sant bu baax tamit di ko gërëm parce que son na ci combat bi lool lool lool lool lool sax xam ak gars yi Dakar Plateau bi Medina gis nga bi tey gis nga fi ay Ada Fass ay Mbaye Gouy Gui gis nga fi champion yëpp xam nga waa Fass gars yëpp ñëw nañ aussi tamit loolu ñuy profité waa équipe Rebeuss tamit gis nañ taxawaay bi xam nga di ñaan yàlla aussi tamit mu gën a dëgëral taxawaay bi xam nga ba gars yëpp incha allah am ay combat di am yàlla booy amagul combat am ay combat course yi tamit tamit noonu parce que gis nañ ni ñuy sonné ci booy yi boobu ba léegi dara ñooñu dañ leen di sant bu baax di leen gërëm bu ñu amee combat dañ si daj ay coono ko su écurie Rebeuss yëpp xam nga écurie Rebeuss tey fu mu mel ñoom la parce que di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla rek aussi benn seytaane bañ a dugg si gars yi xam nga di sant tamit ñi nga xam ne ñoo jóge ba parcelle ko ci mel ni Dame ak Sora dañ leen di sant bu baax di leen gërëm parce que ñoom son Dame son na ci combat bi jàpp na si bu baax a baax am na loo xam sax mais moom xam na man xam naa waaw am na combat aussi tam le douze ñu koy ñaanal yàlla suturaal ko may ko ndam xam nga loolu quoi di ñaanal ñëpp daal waaw di remercier tamit presse bi gis nañ seen taxawaay di leen remercier bu baax a baax baax gis nañ seen taxawaay bu baax a baax parce que presse bi ak làmb ñoo ànd mbër sans presse doo siiw doo dem fenn kon dañ leen di sant bu baax di leen gërëm sama géwél tamit maa ko xam nga ñu koy sant nga xam ne jàpp nañ si gars yi fii ñëw ñëpp ñu leen di sant bu ñu limee dañuy juum mais daal ñu ngi sant ñëpp ay ñoom Babou Touré gis nañ seen taxawaay ñu leen di sant baax di leen gërëm ku mel ni Babou Touré amuñu fayam yàlla même fayam yàlla na ko yàlla fay parce que moom moo fi teewal Diop si tey te gis nañ ko ci open presse waaw di sant ñëpp daal Papis Niang ah ñu ko sant suñu président Saliou Diop bi yëpp moom la siège yi ngay gis barrières yi podium bi lépp moom la suñ président Saliou Diop boole ko di yëkkati xaalisam di ko kon moom tam dañ koy sant di ko gërëm waaw. kontaan nañ ci yow.